boo xoolee bin fi waxee ne dem leen bindu ji xale yi jamono bin leen xam nga trois mois la daan doon bii ñu def ko weer boo benn weer boo xam ne weekend yi génn na ci lépp génn na ci te teewut bi ñu bi ñu waxee ne xale yi dem bindu ji pour wuti ay carte d'identité boo xoolee xale yi ni ñu bindoo mësuñ koo bindoo ci histoire hmm. loolu moo la doon xamal na nag xale yi waaj nan ba jekk te am nan loo xam ne nii mer nan pour waajal ko hmm. mi ngi noonu. Ah. nga euh, gisaat tamit ñu bëgg politicien boo xam ne. politiquement bi ñu ko jàppee jaay ko doole yóbbu ko ci kaso bi dafa jaral xale yu baree bari ñu génn ci mbedd mi ñu faat leen ñii ñu dagg seeni cër ñii exilé wu ji. ñii waaw ñu waaw ñii ñii jaar Nicaragua hmm. gedd réew mi nga gis ñii dugg ci looce yi ne dañuy dem Espagne ngir bëgg benn politicien boo xam ne peut-être buñ ko jaayutoon doole jàpp ko kon yooyu yëpp doonutoon xew mais hmm. malheureusement noonu la demee kon kooku boo demee moom ay élection wala mu joxoñ koo xam ne nii génn na témoin surtout li nawee leader boobu kooku ñëw tamit jaaraat fi leader boobu jaar muy xam ne Ousmane Sonko lu ëpp ci ko Sénégal yi nawee muy man ak samay moro mooy damaa liggéey impôt domaine fukki at ak juróom musuma jël lu ma moom waaw ah, léegi jomaay foofu la ja ah, waaw ñun mu ne loolu kat bi ko Ousmane ko waxee ba tey kenn génnaatut wax ko. Hmm. jomaay moom génnaat na wax ko. ak kenn néewu ko yaa fi sàcc lii wala yaa fi def li lu leer lu leer waaw léegi nag loolu moo tax ku mel moom. loolu lañ ko nawee bu génnee joxañaat nag hmm. koo xam ne nii tamit même chose ni moom ñoo bokkoon ba mu fay liggéey. voilà élection yooyu mënutoon a doon lu dul référendum. Hmm. yéen ay nit yi doon. yàgg jàppale ki nga xam ne moom mooy Ousmane Sonko ci jamono biñ koy tuumaale wax naan gëmut sëriñ si mhm. ñu wax naan fonkut sëriñ si mhm. salafiste la mhm. projet bi ñu am euh, euh, buñ toogee du baax ci këri diine yi yéen ngeen yàgg a wedd loolu euh, di ko jàppale ginnaaw bi nga xamee ne liñ koy tuumaale yëpp mu gañe tous les villes religieuses yoo xam ne moom gañe leen ba pare wëlbatiku. gane bu am doole. doole ko ci. ok mhm. xam naa dama koy yaatal sax nga jàngataal ak gañaay ni mhm. ak visite bi nga xam ne def na ko ci këri diine. Mhm. alhamdulilah xam nga damay wax ne yàlla bu baax. ndax ñun xamoon na ne loolu ay diabolisation la. parce que man ci benn politicien laa gisee Ousmane Sonko dama ko seetaan benn bis. mu euh, benn journaliste intéressé ko fii ci Touba. waaw laaj ko question politique mu ne ko loolu question politique la boo bëggee ma tontu question politique dañuy daje Dakar waaye fii dëkkub diine la buñ dajee Ndakaaru nag boo ma posé question ci politique danaa la tontu ci politique man loolu doyatut ah? laaj naa ko fii ci kër Sëñ Fallou bu kii hmm. wàllum yow yaa ko la ma jeex na kon sax fi mu <laughs> foofu waa ci kër Sëñ Fallou soin bu la woon foofu hmm. daaru ko dos léegi ma seetaanaat eh, ñu baree baree bari eh, ñu baree baree bari yaa ngi dégg ma seetaanaat ñu baree baree bari témoye yaa ngi dégg ñu baree baree bari témoye maanaam ci bu ñëwee ci kilifa diine yi du wax du waxtaan ak ñoom ci politique waaw man gis naa kilifa gu mag bu wax ne man de Ousmane Sonko bu ma ko bëggoon a jàppale ci politique yi itam xaw ma nu ma ko ciy jàppalee ndax bu fi ñëwee moom du wax waxi politique comprendre nga maanaam ci ci ci seen diggante lay waxtaan ak sëñ bi wala euh, ci diine ji daal comprendre nga te boo xoolee Ousmane Sonko dangay xam ne kii diine da koo ñor ah. Ah. boo xoolee da ngay xam ne kii nit la koo xam ne diine da koo ñor comprendre nga léegi nag yooyu yëpp boo koy jàngat xeetu worma la boo xam ne moom da koo jox kilifa diine yi boo xoolee bu daan ñëw ci moom gis nga sëñ Fallou Soye bu sax gis nga màggal Tuuba gi mm-hmm. defe naa ne yëkkati na euh, teraanga yu bari teg ci loxoom pour màggal bi mu nekkee ci kaso bi euh, yëkkati na aw nag ak la koy togg pour muy añu màggalam mm-hmm. comprendre nga kon loolu kóllëre gu séq la ak worma ju mu gis ci ndax sëñ Fallou ñi mu jaxasool bari na mm-hmm. nga gisaat ko mel ni sëñ Cheikh Saliou nga xam ne ñëpp xam nañ ne moom lépp lu xeetoog ay caaxaan amu ko maanaam liggéeyal yàlla liggéeyal yonent bi liggéeyal Serigne baax waaye doon du baayam sëñ Saliou ci lool ci ci taxawal ay jumaa ci loolu ak liggéey bay jaamu yàlla ci lool la ko nit ñëpp xam nga gis ni mu bëggalee boppam Ousmane Sonko gis nga ci Tabaski gi taxawaay bi mu am ci Ousmane Sonko booba sax Ousmane dina gudd ci kaso bi waaye taxawaay bi mu am ci Euh, yëkkati euh, ay teraanga yu bari teg ci loxoom ci tabaski gi yëkk jël doomam teg euh, teg teraanga ji ci loxoom mu yóbbul ko Ousmane Sonko gis nga Ousmane Sonko sax bi muy wax dane man dama ne ko woon sax bàyyil ma ñëw jël si ko waaye mu ne ma mukk xam nga li ma la wax lépp ci kóllëre ak xam qualité bu nekk ci usmaan Sonko ak xam xam kii nit ku bëgg diine la waaye maanaam nit ku bëgg lu baax la Mhm. ci war ma jum jum siq kilifa diine yi nga gisaat aussi euh, sëñ euh, nu mu tuddati sëñ Abdou Mbacke ah sëñ Abdou Mbacke sëñ Abdou Mbacke mhm. na ci ñi fal Macky Sall puisque yëg nga loolu ah <laughs> xam nga kooku bu fekkoon ne nguuru doon nga koñor ah. ak lijjanti boppam ak lijjanti kum fi teg di jaar ci kawam di dund du doon ci Ousmane Sonko la koy séentoo ah ndax euh, ñoom Macky Sall ni mu gëmee ger ak ni mu gëmee ni lu mu bëgg war na ko mën a am ci ger Ousmane Sonko du saaru nit boobu nga gis ne situation bi li muy metti metti metti moom bokk na ci ñi fi teg Macky Sall moom Cheikh Abdou mm. euh, sëñ du Abdou Darou Mouhty am ci taxawaay bu rëy rëy mm. te teewut loolu lépp da koo teg fee ànd ci dëgg mm. xam ne Ousmane Sonko mi gor la su nekk ci dëgg ñu koy yaay doon loolu lépp pour wax la ne la war ma jum séq ak kilifa diine yi maanaam même loo doon doon tuut tànk sax bu ngeen tasee war ma ji muy am si digganteeg yow ak fam lay teg ni mu kawee ak ni mu warmaalee eh, kilifa diine yi hmm. maanaam bayiwut kenn ni mu leen maale ak ni mu leen nangulee cër bi nga xam ne moom la leen suñu borom jox te nag tegu ko ci yaama neex nii da koo teg ci xam-xam ak teg ko ci xam jëfi suñu borom ak coobare suñu borom moom mu nangu ko léegi kooku yow boo ko bëggee jàppalise naan dafa bañ ay tariixa ak ay salafiste ak yow jomaay bi mu ñëwee Touba war ma jim fi ñëwee est-ce que hmm. mas ngaa gis benn président bu ko ñëwee Touba mustaam hmm. hmm. te pourtant jomaay Ousmane Sonko boo xoolee bi muy nekk ci kaso bi vidéo bi génnoon euh, bokk na ci bi muy wax ne bu ma tànnee jomaay ci lii ak lii lan koy jàppalisee xam nga li ma ci yee maanaam bi ci yee ñi nga xam ne ñoo ànd ak moom hmm. daf ne bu ma ko tànnee ba ñu yëg ne tànn naa ko da ngeen dégg nag ñu tàmbali naan ay salafiste la ay nangam te malheureusement <laughs> na ko waxee woon waaw noonu foofu lan jaar xam nga hmm. Ousmane Sonko sax amoon na tuuti ne demoon na suwit botee waaw di jàbbali se naan demoon na suwit botee ak Adji Sarr nangam nangam waaye kii moom dem ci yooyu <laughs> te aussi mënoo ne ab sàcc la mënoo ne dara yow la nga rek mooy <laughs> comme waaw naan salafiste laaj yooyu kese lan man hmm. boo xoolee kon ci na ko Ousmane ko waxee woon ca vidéo ba sax ñoom noonu dong ci loolu dong lan jaaraat naan ay salafiste laaj gëmul sëriñ Seck gis nga même bi gañee sax hmm. ci AC boobu lan continuer woon mooy journaliste TFM yooyu commencé woon nan yooyu hmm. comprendre nga mais war ma ji eh, defe naa kër googu mu duggoon mooy kër sëñ Muntaxa summi ay daalam en tant que président de la république hmm. euh, am na ñoo xam ne ñun ñàkk solo la ñu fay doxee ay dàll hmm. en tant que président de la république moom sax suñu fay dàll ngir war maal barab bu tedd boobu hmm. kon jàpp naa ne sag la ci ñun ñi nga xam ne ñoo taxawoon xam ne lii mooy dëgg xam ne ñii ci ay diabolisation la nekk xam ne ci ay caaxal la nekk ñun ñu taxawoon doon défendre ne li ñu wax dara lu ci dëgg ñii ñu warmaal kilifay diine yi la ñii ñi leen tax a jug mooy xeex ger ñii ñi li leen tax a jug mooy li ñëpp bokk ñëpp jot ci ñii li leen tax a jug mooy réew mi mbay mi doxaat sàmm pes doxaat napp doxaat lépp dox loolu moo leen tax a jug xeex ger ak xeex mbooleem loo xam ne corruption la Mm-hmm. loolu moo leen tax a jóg waaye ñi nga xam ne malheureusement ci guerre la ñuy dund ak toog mooy dox toog muy dox nag suñ ko waxee am na ñu ma ñu bari ñoo xam ne saa yu tuddee baatu toog muy dox ñu gis ci seen bopp di tontu. te alors que man jàpp naa ne toog muy dox dox xam nga même Ousmane Sonko boo seetee. bi muy soog a jël indi fi coow de baalu toog mooy gis naa loolu xam nga ñoom dañoo téyut xam nga Ousmane Sonko. bi muy toogee ko moomale kilifa diine yi. <laughs> kilifa diine yi nan la ñu toogee muy dox. ah am na ñu doon koy moomale kan moo fi toog muy dox. kilifa diine goo gis ma nga ca àll ba. yor daara kilifa diine yi li ñuy def toog muy dox mënu ko. déedéet. kenn ku nekk ci ñun ñaata ne nekk ci sa ginnaaw nga leen di dundal loolu toog muy dox da ko man <laughs> kenn ku nekk yaa ngi yor say tool yor say lijjanti yor say pexe hmm. loolu mooy toog muy dox toog muy dox suñ ko waxee xam nga Ousmane Sonko bi muy soog a jël mairie Ziguinchor bi hmm. fekkoon na fa ñoo xam ne dañ leen a daggaloon ay salaire di leen fay te hmm. loolu mooy toog muy dox même même même eh, nguurug Macky gii bari na ñoo xam ne. ay envoyé spécial ak ay. jeex na yeneen yoo xam ne. <laughs> maanaam dafa da cee bari da cee bari ñoo xam ne maanaam dañoo mm-hmm. toog muy dox. toog muy dox mooy maanaam weer jot yow nga jot sa salaire. te xëyoo góob defoo dara. dégg nga Cheikh Bara Ndiaye keroog li mu wax ci Mame Mbaye man sax loolu bett na ma. nee na maanaam Mame Mbaye Niang euh, bureau bi nga xam moo nekkoon euh, jam ñaajo da koo tuxal woon foofu almadi wetu këram. te aussi daana toog weeru yàlla du xëy. xam nga ni kooku ci toog muy doxalaam la la nekk beneen ba ca dolli ku ñu jox ko ay milliards pour mu taxawal tool yi Prodac waaw milliards yi génn na te gisul tool yi Prodac loolu mooy toog muy dox <laughs> waaw kon ñi nga xam ne luñ dégg rek génn bi xuloo luñ dégg génn bi wut bës di wax ay wax nañu xam ne toog muy dox dafa am ci dëkk bi moo tax xale yi di ko wax am lu wax wax ji Birame Souleye wax tamit loolu indi na fi coow de ci làmb ji waaw lamb jeeg ngénte yeeg moom yemul ci làmb ji donte waa làmb ji lañ gis ñuy ñuy wax nag. ñuy tontu waaw. waaw làmb ji nag de moom xam nga làmb moom. mais làmb jeeg. man ngénte yeeg. waaw football beeg yëpp maanaam ay pare na diw lañ ko parrainé diw lañ ko tuddee yooyu noonu la ñu wax ne ñoom doxuñu ci. waaw loolu ñoom euh, ñoom waa làmb ji xamoon nañ ko. Ah. <laughs> yow gis nga waa làmb ji ñoom ñun ta ñun ñun ñun takkee woon seen digg. Ah. pour procès bi du fi amee. <laughs> loolu moom yow yow xam nga li ma la ku ci dut Ama Balde maanaam ku ci dut Ama Balde wala xale bi nekk parcelle nu tuddati euh, mhm. kii Tapha Mbeur Tapha Mbeur mhm. daanaka ñaar ñooñu rek nga man ak ci euh, dem Amérique nu mu tudd euh, Elton ah Elton eh, déedéet sax gis naa ne moom itam patriote la ki ci des laay mhm. wax mooy ki nga xam ne Célèbre TV nu mu tuddati Kona ñooñu daal nga ci mën a wax ni ñi ay mbër lañ yoo xam ne maanaam ñoom xam nañ ne sénégalais yi ñu bari ñu ngi dund ci mettital ak tumuranke ñu ngi leen di torturer di leen rey bu nawet bi jotee ñenn ñi dëkk ci ndox mi ñuy xeex loolu bëgg projet bi ñëw li ñëpp bokk ñëpp jot ci waaye ku ci dugg ñooñu rek rawatina mbër yu mag yi muy hmm. ay Gris Bordeaux ay Balla Gaye ay euh, Modou loo moom gis nga ne sax moom Amadou moom daa mujjoon sax wut ci tiset yi <laughs> <laughs> bokk ci garde corps yi. waaw. <laughs> dégg nga kon ñoom xamoon nañ ne ñii li leen tax a jóg mooy li ñëpp bokk ñëpp jot ci malheureusement nag mbër yooyu moom li leen tax a jóg mooy euh, ñoom Macky Sall ak euh, xeetu hmm. système bi buñ bëggee nelawal askan wi boole ay làmb yu mag tëggal leen ñu nekk di ci débat hmm. kii nii la ko daaneeg fële la ko dóor yooyu te loolu alors que jëmewut fenn am réew amul benn hmm. njariñ ñu ñuy gëmloo ne suñu culture la suñu lii la amul benn njariñ man waxuma la waxuma la buñ buñ leen tuddee ay làmb waaye man jàpp naa ne arène nationale bi sax nan ko war a soppi soppi leneen daal lu bokkut ak ay mbër jàpp naa ne daal loolu moom xëy na nag toolam xam ne réew mi ñu ci baree baree bari jublu nañ ko waaye daal man dama cee gisul daal benn njariñ bu man a aw ba ama xam nga am réew moom lépp loo xam ne boo ko gëstoo ba ca biir mënta mhm. développer réew ma mhm. loolu amul njariñ ndax même ñoom bu fekkoon ne dañ koo organiser ba nga xam ne VIP yi ñoom nit ñi amee xaalis ndaw ñi nga xam ne dañoo ñoom itam ñoo nekk ci suuf noonu lañ mhm. ciy gisee seen bopp mais ndaw ñi ku ci bëre tey bala ngaa bëreete kenn du xam kañ la ah. te aussi duñ leen fay dara daanaka buñ leen fay dara boo xoolee kon xaalis bi ngay dugg ci bégg ci làmb ji ñetti mbër ñeent ñoo koy séddoo ah. xale yi ci des kon loolu mënut a développer réew jëmut fenn amut benn njariñ te li nit ñiy toog malheureusement li ngay toog di ko débat ci mbër ma nooju na ko galgal na ko téq na ko jaaxaan na ak dugg na fii nan ko waxtaane ci circo beeg pétrole beeg gaz bi suñu réew mën a avancer jëm kanam mu leer jàpp naan loolu moom euh, li nga xam ne bëgg naa ci ñëwaat muy hmm. wàllum euh, sàcc yi nga xam ne ñu ngi leen di jàpp. su ma mm-hmm. waxee loolu nag mooy président Diomaye fan yi mm-hmm. euh, mbirum réduction de contre lu ko ñor la. Mm-hmm. dégg nañ ñu joxee ñi nga xam ne ñoom ñooy euh, euh, li nga xam ne. institution financière yi indi ay leeral. wala publier sax rapport yi. rapport yi waaw nag ak Cour des ak yeneen ak yeneen. ndaka nga giseel mbir moom. dama koy rafetlu parce que ñun dafa bokk ci li ñu mooy. xam nga toppante bokkut ki nga xam ne dañ koo jox alalu askan wi maanaam mu mu mu nuubal ko hmm. ñu nanguwaat ko delloo ko ci réew mi moo xoolee moo tax sax booy xool jomaay bi mu wax ci ay teggin yu ma sëkk la ci wax ba ne hmm. képp koo xam ne hmm. jël nga alalu askan wi boo ko delloosee xam ne lii moomoo ko askanu Sénégal ñoo ko moom nga delloosi ko euh, ci sa coobare yow danan ci comp dara jox la ngir nga dimbali koo waaye danan la suturaal mhm. comprendre nga ah. waaye képp koo xam ne dangaa jël alalu askan wi lànk bañ koo delloo si mhm. ah, su boobaa nag yoon day daal di dal ci sa kaw leer waaw ah, may nan leen nag léegi nag ñoom ñooy xool kenn ku nekk nag yaay xool sa crédibilité ñun daal leer na nu naa ñi ne mhm. ñii ne nan vingt neuf milliards ñii ne euh, trente neuf ñii ne quarante ñii ne et cetera. Hmm. génne nañ ko muy milliards yu waroon a dugg ci Prodac man nga gisuma fi tooli Prodac te milliards ya moom génn na. Hmm. Mame Mbaye Niang mi doon weddi ne rapport amut keroog bi mu génnaatee nee na rapport am na. waaw <laughs> moom moo loolu <laughs> moo weddi woon hmm. moo taxaw dëggalaat ne rapport am na te alors que caaxaan yooyu nga xam ne leeroon na ko ne rapport am na mu weddi na amut bari na ñoo xam ne ñàkk nañ ci seen bakkan bari na ñoo xam ne dagg nañ ci seen it yëpp ñeena fitna judul jeex ci Sénégal hmm. comprendre nga gis nañ fi tamit euh, rapport boo xam ne ci covid 19 bi la ah. muy ay rapport yoo xam ne épingle nañu bëree baree bari ci nguuru Macky Sall comprendre nga hmm. kon rapport yooyu tamit muy ay ay ay ay maanaam ay gonfale ay chiffrage yoo xam ne ci lan hmm. doon jaar di sàcc looy jar ñaar fokk ñu ne ñaari junni comprendre nga luubal ci milliards réew mi ñooñu kat vraiment nag war hmm. nañoo taxaw ñu delloo ñu li nga xam ne mooy suñu alal ñu delloowaat ko ci réew mi askan wi yëpp mën cee jot. Hmm. gis nañ fi tamit euh, rapport yi daal bari na et cetera bari na ñëpp ko xamandoo ci réew mi loolu nag dañ ko war a publier. képp hmm. koo xam ne jël nga alalu askan wi nga delloo leen ko loolu mooy dëgg. parce que réew mi mënoo koo liggéey. te tegoo ko ci dëgg loolu mënul nekk boo fi ñëwee nag ne euh, li fi jaaroon lépp da ngay bàyyi mu sedd fan ngay jaar ba liggéey sax nga dul xam. Hmm. ki nga yow nga ne élection yi bi mu jàllee léegi. Hmm. ñu baree baree bari ñu daan génn di jaay ak réewande ak pànk léegi nag nee na muut xam na ne alal léegi jënd nañ galaas sensé nañ. am nañ ne mbir yi waaw ndax xam nañ ne. incha allah moom. Mhm. Euh, ay gii nga xam ne moo dugg ci loxoy waa Pastef dana yàgg ci seen loxo. Mhm. ndax dañoo fas yéene Diomaye def deux mandats yaa ngi dégg. bu paree dañoo fas yéene Ousmane Sonko def deux mandats dañoo fas yéene Ngagne Demba Touré def de ci yàgg de bu soobee yàlla. ancien ministre yi nga xam ne ah. ñoom ñoo yoroon ay fonction te léegi nekkatuñu ay ministre mhm. Macky Sall signé woon euh, décret. ngir ay euh, ñu mën continuer di yor ay passeport diplomatique mhm. ak yenn privilège ñu mhm. gis ne euh, fan yi coowul nangu passeport diplomatique mhm. ci ministre yi ak ba ci voiture de fonction yi leen joxoon sax waaw loolu de Macky Sall defoon na ko fi boo xoolee moom bi mu toogee ah. Macky Sall defoon na ko fi te peut-être Ablaye Wade sax amoon na dignité yi bi mu laajee troisième mandat gagné nan ko mu woo Macky Sall félicité ko félicité ko nekk ko fi di saboote léegi nag Macky Sall moom dafa ñàkk ba noppi ba noppi ñànki ah. boo xoolee moom mi tànnoon Amadou Ba sax dafa dem ba man waxoon naa la ko fii nee woon naa la Macky Sall <laughs> Amadou Ba du candidat Amadou Ba du candidat ah. nee woon naa la Pastef gagné élection yi moo ko tànneel Amadou Ba mii gagné élection yi ah. parce que bi mu ko tànnee ba ci biir lay soog a comprendre léegi nag li nga wax noonu euh, problème bi mooy ci euh, nga xam ne mooy euh, waa Pastef li ñu man mooy euh, ñi nga xam ne maanaam dañoo jël alalu askan wi ñu delloo ko hmm. waaye li nga xam ne moom lan man